parce que télé ba may liggéey Feeling Dakar sax menacé nan ma ci mhm. patron bi sax woo naan ma noo fii waa kër Ousmane Sonko la ñoo fi nekk ñoom ñoo ñu seetaan mhm. donc dama bëggoon booy wax nga raay bu dee waa dan lay fay Ousmane Sonko da lay fay nga wax ma man fayuñu ma mhm. kon ma doon sax d'accord mais man fayuñu di ko wax waaw mu ne ma noo maa ngi wax la man nga ñàkkuma fu waxee damay wax dëkk gi moom dama ko wax réew mi kenn moomu ko. boo demee ba sa télé nga jël ko né télé bi télé Ousmane Sonko lako ko sa problème. la yaa xam c'est vraiment grave. waaw c'est vraiment grave té mon dunduma loolu wax dëgg yalla man moom dëgg gi dama ko wax parce que Sénégal mo ñor. waaw d'accord ñu jéxalé ak batay ci pétrole bi. ah ñu ngi exploité yaakaar ngeen dinañ si gis ñom ñoo fi toogoon wax ne ñom ñun ñom bu ñu réew ñun dina ndékkee pétrole ñun ñëpp. waaw balaa balaa ndékkee pétrole 2016 la Sonko toog gis nga vidéo boobu. waaw ne euh, première baril kii euh, euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi exploité pétrole bi 2016 ak woon ñi ngi manque di yóbbu bato yaa ngi ñëw di duy di dem xamuñ suñu bénéfice fu muy nekk. Hmm. loolu yëpp moo ko fi waxoon ne nekk te loolu yëpp nekkul woon dara. Ah, déggoo déggoo li ma la wax loolu laa loolu laa lay wax moo tax ma ne la man ci ñi nii ndax man bokkuma ci. Hmm. parce que tey bu Ousmane tey li yëpp ñëpp xam nañ du dëgg mais li mu doon leen projet bi 2050 la li mu doon wax yëpp nee na projet bi ñuy wax ñëw na projet bi. Sénégal vision 2050 2050. léegi nag 2050 moom ndax dina ko dina ko fekk wala dina ko fi bàyyi ñun mm. ñàkk ñu fayda de. mais yaakaar ngeen pétrole bi 52 ñu si war a am si bi Sénégal nekk majorité que war nañ cee mën a gis suñu bopp. waaw ñii ban gis seen bopp ñoom instant bi ñu ciy seen bopp ku jël xar may ko Sankara Mbaye kay xam ne influenceur la téléphone lay taal naan Ousmane Sonko yaa fi nekk ñu may ko xar loolu la ñu waxoon nañ ko fiy jëlee jël Azura Azura wane ab chèque 1 million. ah ñoom ñi ngay paajoo seen biir ñii dañoo xiif yow tamit ma mm. xiif dañoo xiif baax na yàlla bëri na sutura mhm. <laughs> loolu moom mënu ma see teg leneen kontaan naa jërëjëf maa la gën a kontaan la di di di la ñaanal waaw yàlla suñu la sàmm aar la taxaw bi ah, ak disponibilité bi wax dëgg na yàlla oyof nga tool ni mbaxana yàlla bu la suñu boroom ah, teg daray coono mm-hmm. kontaan naa bu baax waa Public SN bi kontaan nañ ma bàyyi la nga tàggatoo mbokk yi lay doon seetaan di baal ñëpp ak